tey ñoo ngi ñëw ci juróom ñetteelu jigéen bi ci jigéen ñi nga xam ni ñëwoon nañ di wax yaa Aïcha seen melokaanu jëkkër juróom ñetteelu jigéen bi moom li mu wax dafa ni zawjiyal mas massu arnab war riix riixu darnab زوجي المص مص أرنب والريح ريح ذرنب ndaw si moom dafa tagg borom këram mu ne zawji yal mas maanaam sama jëkkër daal yaramam dafa nooy foo laal mu nooy fu mu la laal mu nooy naimul bishra yaramam dafa nooy foo mu nooy jikkoom dafa nooy moo tax mu ne masul arnab dafa nooy ba yaramu njombar ni mu mel xam ngeen ni njombar der bi dafa nooy kawar gi dafa nooy kon njombar lépp a nooy moo tax mu ne massul arnab sama jëkkër daal ni mu nooyee mooy ni njombar nooyee la ca gën a yéeme nag mu ne war riixu riixu zarnab ba sama jëkkër daal xet gi muy xeeñ moom xetu sarnab la zarnab benn fleur la boo xam ni xet bi dafa neex fleur boobu soo xëyee suba teel noyyi ko sa xol day sedd boo nekkee moom bëccëg sa xol day sedd même guddi bu fleur yi nelaw moom xet lay nelawaale kon ndaw si am na lu mu jàngale te ñun góor ñi war nañ koo jàngee ci moom kon góor ak jigéen war nañoo melokaanoo melokaanu xet bu neex parfum wu soccu sangu cuuraayu lépp lu ruqe ci sa yaram tey am xet nga fexe mu bañ a am di dagg say we di wef say di defar sa sikkim di defar sa kawaru nakko waaye di raxas sa ginnaw yoy yep nga di ko defar ndax xet fay dàq góor gi bu liggéey ba ñew rek ne do sangu wala ñu tiajal la ndox nga ni do sangu dedet ndax kawlal dafa xat ñaar ñi fay nekk kenn warul garde xet kon soxna si na moytu xet buy dàq jëkkëram waaye góor gi it na moytu xet buy dàq jabaram te loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ci jàngale misaal yu kawe la ñëw na ci xadiisu Shurayh ibn Hani ma nga ca muslim moom mu ne قلت لعائشة بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته قالت بالسواك من دمالات يا عائشة نكو يننت ببو أيوان تيو ولا تكن تسخنام بوي دوغو تنيغم للي ديك يا عائشة نكو يننت ببو دوغي رك ديجل صلى الله عليه وسلم سوتشو ba bëñuy set socc làmmiñ bi loolu lay njëkk a def kon loolu melokaan la buy dindi xeetu gémmiñ kii toppatoo gémmiñam xam ngeen ne day toppatoo yaramam kon melokaan boobu na góor gi di socc comme soxna si di ko def waaye nañuy fexe ba jikko yi nooy nit ki bu jikkoom nooyee rek yaramam nooy su yaramam nooyee xolam nooy su xolam nooyee soxnaam bëgg ko bu ko soxnaam bëggee dana am jàmm ci bépp côté kon juróom ñetteelu soxna si dafa tagg boroom këram ci nooy jikko nooy melokaan nooy yaram nooy wax nooy jëf ba pare di xetoo xet bu neex nag kon melokaan bi moy melokanu julit bi nga xamni bëgg na boromam gëreem ko waaye bëgg na soxnam gëreem ko yalla ñu yalla dimbale dimbale soxna yépp waaye nak ma ngi wax soxna yi nañu goru nak ci lepp lo xam dana tax jëkkër kontan ci di xéñ ñu neex waaye moytul xéñ ñu neex sa jikko naqari gis nga yow jigen di bu sa jikko naqare lo xéñ du xéñ sa jëkkër bu sa jikko ñaawé no mel do rafet sa kanam borom kër kon bo bëggee sa borom kër loo xeeñ mu neex ko loo def mu neex ko fexe koo neex jaxasoo la sa borom kër ba mel ni ndox ak sow ndox ak sow ba ñu leen njaree xam nga ne rek ndox ak sow ak suukar la waaye xamatoo ndox ma ëpp xamoo sow ma ëpp xamoo suukar sa lan moo tax dañoo bokk benn moo tax kenn dootu ko tuddee sow kenn dootu ko tuddee ndox kenn dootu ko tuddee suukar nu ñu koy tuddee njar ñoom ñëpp ànd nañ bokk jikko wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain